man yaakaar naa ne eh, am na ci yoo xam ne su fekkee ne dof collectif lu moom moom ngay wax ne moom la. dof collectif. waaw mhm. mooy nit ñëpp dégg nañu loo xam ne. Mhm. xel nangu ko jaaduwul. Mhm. waaye kon su fekkee ne tey nit da leen ne yéen. bés sàngam heure sàngam damay tëb rek naaw ci asamaan si dem fookar ci la yàlla yoroon indil leen ko itam nit ñi ko gaawal. ku jaaxle moom hmm. euh, borom xam-xam yi ci yenn téere yi nga xam ne hmm. oustaz mi na koy jàngale hmm. dañuy wax ne kuy bëgg a lab boo ko joxee journal it mu jàpp ci journal ba doom xam ne journal ba du ko teree lab loolu nit ñi dañoo ci waa ci bëgg a lab loo leen jox rek ñu téye ci doonte la waaw jox rek ne leen lii dina tax du ngeen laba rek ñu jël ko mooy li ma la wax rek. Mhm. mooy loolu du ko wax ci réew euh, moo xam ne nit ñee ñëw fa ëpp. réew mu doo fi ëpp rek. Mhm. Sénégal nag moom mhm. ku fi bëggoon am xaalis da ngay def société boo xam ne day exporter ay dof. yow nga jël dof yooyu kii leen dafa paqueté leen ak yëpp wax lu ñuy peeseek waaw yëpp bu ko defee ah, xam nga tubaab yi si réew yëpp dañu am. ay hôpital dof yoo xam ne dañuy soxla dof yoo xam ne dañ ciy jàngee nu ñuy fajee dof Sénégal moom ku fi demoon exportation dof société exportation des dof eh, rek eh, ak ilifu yi wallaay day bëri la day bëri xaalis uh-huh. amu ne ilifu kay moom am na fi uh-huh. bu fi dafa amul ilifu moom am na